première fois ci histoire làmb mbër ñëw taxaw ñu daan ko ba pare mu def geste bu noble ay fansam réglé lool yaru lool du ñu violente du ñu saaga du ñu jàll baat mag xam nañ ne lépp sport la kaf agre ban mbër moo ko fi am ci histoire Sénégal ba làmb dalee làmb ba léegi depuis jamonoy ñoom Manga 2 ñoom Tyson ba léegi kan moo ko fi mës a def te mbër mi la daan sax yàlla def na mënut mbër mi la yàlla def na mënut yéen lu ngeen di bañ a dégg ngeen ne moo loo mënut manut Mourlo Manus dafa daan mbër <laughs> re jàpp dama sax ak ki Serigne Touba Mbacke lii warul jeex làmb ji dafa war a continuer suba tamit beneen làmb dafa war a amaat Manus man maa ne Mourlo moo daan sunu mbër mi mbëru Pastef bi mais Mourlo Manus moom ngeen di bañ a dégg Mourlo Manus dafa am leen seen bakkan yi ma xool Mourlo Manus ñii di ma woowee fu nekk ma tax nga naan Mourlo mais Mourlo Manus mais yéen bu vous prenez pour qui